Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yu IYAT TV euh, Abdou Karim Fofana moom mi nga xam ne nag moom moo yor kàddul gouvernement bi man nañ ne nag daal di nay génn dal ci kaw gi nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko euh, loolekat kat mën nañ ne du nekk lu bett kenn moom mii nag mu jot a xam ne que ne kat Ousmane Sonko dafa am stratégie bu nga xam ne rek moom lay doxal ci jamono yi ñu toll nii maanaam dafa bëgg rek génn wane li nga xam ne rek moom mooy mbooloom ci kanamu sénégalais yëpp. Touré bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy parti au pouvoir daal di koy bàyyi xel tax nag moom mii di Karim Fofana jot a xamle que ni kat bu fekkente ne tentative lay def rek say boo mu daal di ñuy moytu nekkati jamono yi ñu toll nii mën nañ bu fekkente ne comme ni nga xam ne rek noonu la ko ministre de l'intérieur jotoon a xamle nekkat suñu takk der yi mat nañ li ñu doon doontele nag duñ ko def sax duñ wax pour xupaate wante kat képp ku fi jéem li nga xam ne rek moom mooy yoon mën président Ousmane Sonko dafa mel ne moo ko moom li waral nag Abdou Karim Fofana yëkkati kàddu yi ni mel lekk man nañ ne euh, dafa tombeek jamono bi président Ousmane Sonko war a dal di génn nag ci li nga xam ne rek moom mooy caravane de la liberté maanaam bawoo foofale ca diwaanu Ziguinchor rek euh, fa seene utali diwaanu Ndakaaru jaar ci ay réew ay dëkk yu bare bare bari ci ñi nga xam ne rek ay soppem lañ ay am di jàmmam fa seene leen a ba ni muy duggee ca diwaanu Ndakaaru mel ne jamono yi ñu toll nii dafa daal di tiital bu baax a baax a baax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor lépp lu dellu ci wàllu pouvoir ci si diwaanu Sénégal rawatina nag parti politique yi nga xam ne rek ñi ngi fii ci biir réew mi ci jamono yi ñu toll nii nag mën nañoo daal di wax que ne kat Sénégal mi ngi ci buumuk njaameel tax kii di Ousmane Sonko ne bëgg nañ koo dagg kon nag ñi nga xam ne dañuy jëfaru jamono yi ñu toll nii mooy ñi nga xam ne rek dañoo jàpp ne bis bu président Ousmane Sonko toogee rek dinañ am problème boo xam ne duñ xam fuñ koy nettalee di leen di jaajëfal di leen wax ngeen di woy di abonné IYAT TV jaa ngeen jëf.